abonné leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil wa baadu assalaamu wa rahmatullahi wa julli ñu bokk yàlla ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal ak di leen ku baalu di sant yàlla bu baax di leen santal yàlla di ñaan yàlla yal na yàlla boole nangul ñu ngi dellu si siwaat ci sunu téere bi di matnu asmaawiyati bi mooy sunu fukkeel bi ak ñeent maanaam quatorzième leson ci téere bi te ñu ngi war a ñëw ci baabu siyaam maanaam buntu koor koor nag mbokk julli ñu bàyyi sa xel bu baax a baax weeru koor baa ngi jege si daa fekk weer yaakaar naa su ma juumul ñetti weer motul ñeenti weer moom ñetti weer daal yaakaar naa ci lay war a yem su ko defee loolu ñu bàyyi ko xel ña ci yoroon bor fay ña ci war a góorgóorlu it tabaarakàlla góorgóorlu si moo tax koor tamit dafa bokk ci ponki lislaam yi nga xamante ne bi moom lañu charat e, farataal ci ñun moom tabaarakàlla lu jar a bàyyi xel la yàllaa ko santaane def ko njëriñ kese la mu nga kon mu ne baabu siyaam bunt bi day wax ci wàllu koor ne wa sawmu ramadan woor weeru koor faridatun farata la weeru farata la waaye kañ lay sax mu ne yasbatu bi kamaali chaabaan mu ngi motee ci saxuk motuk weeru chaabaan mooy weeru baraxlu aw bi ruuyati li aadalay ni ñu gis ko wala aw bi ruuyati wala ci gisuk aadalay ñaar ñu maandu gis weer bi ñëw wax ñu ko mungook ngoog ñu gis lil xilaal ñeel taxawaayu weer wi maanaam ñu ne weer wi taxaw na séntu nañ ko gis nañ ko aw jamaatin mustafida wala mbooloo mu bari ñëw ne gis nañu weer wi mu nga kon yii daal bu amee ñetti yii matuk weeru caabaan fanweeri fan wala ñaar ñu maandu gis ko wala mu mbooloo mu bari gis ko ñu wax ñu ko nañ ci sukkandiku te woor wa kazalika naka noonu rek fil fitri bu ñu demee bay doge ji maanaam ci bésu korite bi tamit noonu rek la moom dañuy mot dañuy gis ci juróom ñaar fukkeel bi ak juróom-ñeent suñ ko gisul motal fanweer weeru koor gi wala ñaar ñu maandu gis ko ñëw wax ñu wala mbooloo mu bari noonu rek la ci bopp be geen bi yëpp noonu rek lay demee nee na wayu bayitu siyaam waaye dañu danañu fanaanoo woor fi yi ci njëlbeenu guddi gu njëkk ga ci lañuy fanaanoo ne damay woor yéen bi yëpp fa la fa lañ koy tàbbale it waaye walaysa alayhi warul nekkul ci kaw moom ci kawam moom miy jullit te war a woor albayaatu muy fanaan muy fanaanoo fii baqiyatihi li des ci guddi yi maanaam guddi bu njëkk ba daal fa lay rotalee yéene ne maa ngi bëgg fas yéene woor weeru koor bi yëpp benn yéene boobu dana doy mu ngoog warul ci moom nag guddi gu nekk mu fanaanoo ne suba demay woor suba demay woor jaratu ko waaye bu wooree nag wa yetti mu na motal asiyaama koor koor bi ila layli ba ci guddi bu guddi nag mooy timis rek tàmbale fajar ba timis gu rek na dog wa mina sunnati bokk na ci sunnay koor taajilul fitri ga gaaw a dog wa taaxiru suhuur nga yéexee xëdd fii Sénégal nag moom dañuy def cas sens contraire bi dañuy gaaw a dog di yéex a xëdd loolu nag kenn xamul lu mu doon nee na waxaay su sabat saxru nee na fépp fu mu saxee ne gis nañuy weer bi xablal fajar lu jiitu fajar rek wajaba mu war nañu woor bés boobu wa in lam yasbut su fekkee nag saxul dégguñu ko fenn ku weer bi illaa baadal fajar lu dul gannaaw fajar la ah booba nag lay war mooy wajaba imsaaku war na si ñun ñu jàpp bañ lekk bañ a naan waaye nag wala budda min qadaai zalika al yawm faw nag ñu fay bés boobu moom dañ koy fay kon buñ ko déggee lu jiitu koor lu jiitu fajar dañuy woor buñ ko déggee gannaaw fajar di war na si ñu ñu jàpp ñu bañ a lekk bañ a naan waaye bés bu dañ koy fay ñu bàyyi ci xel wan niyatu yéen nag qabla subuuti shahri lu jiitu ñuy gis saxuk weer maanaam kenn gisu fenn yow nga ne da nga yéene weer woor neen loolu baatilun baatilatun loolu neen la caaxaan rek la loolu wérut xataa law nawaa su fekkoo ne xataa bu fekkoo ne moom law nawaa dafa yéene woon qabla ru'yati lu jiitu ñuy gis weer wi mu ne man de yéene naa woor su ma asbaxa gannaagoo mu xëy rek lam yaakul wala mu yashrab lekkul naanul waaye su ma yeta bayi nanu gannaagoo topp mu feeñal ko ne anna zalika al yawm naka bés bii kat min ramadan ci weeru koor la bokk ndekete gis nañ ko ñu ngi woor a ah, bu boobaa nag sari yeneen lam yu du ko doy bés du ko doy faw mu fay waawaw moom lu koy day mooy moom wayu mastiku dafay jàpp anil akali walis du lekk wa shur bi ak naan fii ci bos boobu lu tax li xormati shari ngir ormaal weeru koor gi waaye wa yaqtadihi bés boobu da koy fay nañ ci bàyyi xel waaye wala yi saamu yawmu shakki kenn du woor bés sikki sàkk gis nañ ko gisuñu ko kenn waru ko woor ngir ran li yuxtaata bihi ngir dem ba Euh, léemtu ko léemtu mooy wër ba daj ko rek léemtu ko ñu ramadaan fekk ci weeru koor la même boo ko defee it la xamal ni jàppaloo ci waaw même boo dajee jàppaloo ci boo wooree it bés boobu da koy fay waaye jusu dana dagan yi siyaamuhu woor nag bés boobu li tax ngir gàttal nga am ci tiyaaba boobu faf wa nazari walla nëzër istaadafa su fekkee ne daje naag bés boobu weeru koor la ñaar yi moom mën nga si am tiyaaba bu dee nësër la wala gàttal la mën nga am tiyaaba boobu waaye koor moom amuloo tiyaabaam wa yustahabu sopp nañu imsaaku nga jàpp fii awalihi ci njëlbeen maanaam ci njëlbeenu weer wi lii yataxaqaqa ba nga ba mu wóor la ba mu wóor annaasu nit ñi ar ru'yata gisuk weer wi waaw nit ñi war nañoo jàpp ci bés bu njëkk ba ba mu wóor leen ni gis nañu weer wi wala gisuñu ko léegi nag fa in irtafa nahaar bu demee ba yëkkatikoo bëccëg bi walam tazhar ru'yatu feeñul fenn gis nañu weer wi aftara naas nit ñi mun nañoo dog seen koor waaye wala yuftaru du dog nag man zaaraahu ku nga xam ne seen def koo daf koo gëtëng ayoon wàcc wala gàll illaa an yuaarij lu dul nag moom moo bëreeg loola xurujuhu génnuk loola fa aley kon war na ko alqada mu fay bés boobu bu dee dafa gàll rek wala wàccu ci noonu rek moom du dara waru ko waaye su fekkee ne moom moo dugal baaraamam wala mu def lu tax xelam teey ba mu wàcc walla mu mu daal di gàll ah bu boobaa nag bés boobu def koy fay nee na wala yuftiru du dog koor it kan mu ne man ixtalam koo xamante ne dafa gént ci bëccëg weeru koor daf tëdd rek am lu génn ci moom mu gént di jot ak jigéen am lu génn ci moom donte génn na ba tuuru ci yaramam it du dog kooram na continuer koor gi baax na dem sangu ji rek wala man tajama du ko xam ne dafa gàjju maanaam dafa gàjju ba deretam génn waaye wattu ko sib nañu xijaamatu mu dem di gàjju lil mari di ñeel ku feebar lu tax mu ne xiifata taxiir dañuy ragal ngir mu miir mun di daanu wala ab problème complication dab ko ci su demee gàjju wala mu dem euh, ñaasu ji bu fekkee ne loolu deretam génn na mun na see miir wala di am ay complication kon loolu sib nañ ko si moom bañ kaa def wa min shuruudi sihhati sawmi bokk na ci charte condition yi wéral koor an niyatu saabiqatu lil fajri mooy yéene bu jiitu fajar yéene bi mooy jiitu fajar sawaun moo xam kaana nekk na fardan koor faratala la aw nafalan wala koorlu naafi la moom yéene bi faw mu jiitu fajar rek nee na nag wa niyatul wahidatu benn yéene day kaafiyatun dana doy fi kulli min ci bépp koor boo xam ne yajibu tataabuhu war nañu toftale ko war nañu toftale ko mana kooru farata ak koor yi mu bëgg a wax mu mel ni kooru ku nuróole ndeyam yaayam ak jabaram ak kooru ku rey nit ak kooru ku nësër koor yi nga xamante ne daal nit kii daf koy woor di koy toftale ba mu jeex boo benn yéene dina ci doy moo tax mu ne ah, wan niyatul waahidatu kaafi fi kulli sawmin yajibu tataabu bépp koor boo xam ne war nañuy toftale ko rek kat siyaami ramadan lu mel ni woor weeru koor wa siyaami kafaaratu zihaar lu mel ni woor kuy def kafaara ngir nurale woon yaayam ak am wa qatli ak kuré nit wa nazare ak ku koo xam ne dafa def nizar ah, gàttalu allazi ki nga xam ne awjabahu moom moo waral loolu almukallifu koo xam ne muskalaf la ala nafsi ci boppam koor boo xam ne moo ko waral ci boppam waaye kenn tegu ko ko moom moo ko teg boppam loolu tamit mën na kaa yéene waaye yéene ba mooy jiitu fajar de benn yéene bi dana si doy waa masiyaamu masruudu su fekkee ne koor bi nga xam ne dañ koy dog dogatee woor tey bàyyi suba woor tey bàyyi suba mu loolu moom wal yawmul muayyin ak bés bu ñu ràññee lu mel ni alxamis bi rek lay woor wala aljuma rek lay woor wala altine rek lay woor kooku falaa budda faw nag min tabiiti fiihi mu fanaanoo ci loola kullu laytin bépp guddi rek mu ne damay woor suba suba damay woor suba damay woor incha allah kon xam naa ni euh, dañuy taxawoon foofu ba suba jàmm ñi ñëw ci surutu sixati sawmi euh, ci charte yi nga xam ne moom mooy waral euh, moom mooy wëral koor ci jigéen bu set ci deret incha allah yal na ni may dégg topp ba suba ak jàmm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.